daalante nga li li manqué nga sow di ko gis quoi. léegi Sufle, ñëwee ci géew bi arbitre soufflé boo xoolee Tafa nee nga comme ne mu bëreewoon bi passé maanaam delluwul ginnaaw. Hmm. moom moo sax gërbal dóor yi ba gërbal bala arrière. Hmm. bali yak man maa ngi bala mi ngi arrière. bala bala ni sëj taxaw bala taxaw na dër na. dëgg la bi mu taxawee Tafa juk di duri, yi mais dóor ba dafa mel dafa àndaale ak dem jàppale ji. foofu grand salle. waaw kër mhm. xam nga tey tafaatin man mhm. ci c'est la première fois ma gis kuy guerre ji wane say arme wala nga wax ne bu ma demee guerre ba lii laay def. dakoo koo def moom tafaatin. tafaatin ci point de presse bi Babacar dégg nga ko mu ne ñëpp nee nañu bala moo ma dàq bëre damay dem bëre ji ak moom dégg nga loolu wala déggoo. bu baax fii ci dakaraat ti mu ngi fi la ko wax. wax na ko ci biiru bi mu demee lu sori répété waat na loolu. mais loolu la def. Hmm? Tapha Tine dafa won Balak ne ko damay bëre si. Babacar arbitre dafa soufflé. waaw départu combat bi li Tapha def d' accord naa ci ak moom. arbitre soufflé nga dox ci sa kaw adversaire mais boo doxee bëre dóor lañu wax. Hmm. mais boo xoolee Tapha dafa léewaatoo. Hmm. jékki-jékki yóotu loxo bala ñuy wax mu jëlaat beneen loxo bu di yóotu pour jàppante. bala day bañ parce que wax na ko moom. damay ñëw bëre si. mais bëgg a def loolu bala bañ. ne ko man damay xeex. damay xeex duñ bëre. ñu bëre damay xeex ci la bala dafa mimé bala dóor dafa yooru dew jàpp ji bala bi dafa jàppee ba jàpp ñaari loxoom. deful dara bala jàpput fenn mais dafa déglu déglu waa ji deful dara. Mhm. bala commencé dóor ay pirkir kër man li ma mënul comprendre. Mhm. nga jàpp waa ji mu dóor benn épirkir mu dal sa kanam. lu mhm. tax nga fay xaar ba muy ñaar bay ñet mhm. waaw parce que hypercure ya ko dal foofu bari na de ñu ngi lay door hypercure nga jël sa bop seug hypercure dal mhm. nga duggal sa bop au lieu nga gëné sa bop te balla bo xolé day kor sigi fa seug ci so mu lay door hypercure ngay encaissé ci kuy muy dal doo sigi mais nga dess fa rek bay ba waji ji di la gaañ tamit est-ce que déplacement yi tamit balle gënu ci gaaw parce que boo day kor mais mais buy door day déplacer wu di fatt droitu tafaa bi mooy da ngay ñëw ci li ma doon wax sànq ne la liggéey nañu seen physique ñoom ñaar bu boo leen gisee xam ne ñii liggéey nañu mais dafa des leneen ci biir mooy ci nga ñëw nii hmm. boo gisee combat bi hmm. Balla li mu gàññee Tapha Babacar mooy Tapha kenn du ne indiwut physique bu baax kenn du ne indiwut doole hmm. mais Tapha dafa yeewut dooleem balaa muy ñëw ci làmba ji bëri si yeewut dooleem yeewut ji yeewul dooleem waaw yeewu ko quoi balaa muy bëri si waaw loo tuddee yee sa doole balaa ngay bëree si. merci beaucoup Babacar. Mhm. tabaatin boo xoolee. Mhm. li ko yàqal ci làmb ji lee Babacar. Mhm. boo entraîné ba am doole Babacar. sa yaram la nga war a fexe mu nooy. waaw am vivacité. da ci war a boole endurance. da nga ci war a boole résistance. da ci war a boole réflexe. da nga ci war a boole détermination. boo entraîné ba am doole. boo entraîné ba am doole. waaw loolu mooy accompagner doole ji pour nga mën a utiliser sa doole. mais boo xoolee Tapha Tine indi na poids bu bari indi na doole. Mhm. mais bi mu jógee bi mu jógee euh, fële ba. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ba ñëw. waaw waroon na def ay assouplissement ba yaram bi nooy. liggéey mhm. vivacité am rapidité am mhm. mais dama koy wax te duma ko tayal di wax Tapha Tine dafa yéex Babacar. dafa yéex dafa yéex waaye loolu da yàgg naa dégg nga di ko wax non te moo am te day feeñ ci ay combat maanaam nee nga réaction dafa yéex réaction dafa yéex Babacar boo xoolee tabaatin gëñ na taxaw ci leewaatoo mu dóor mbër ca ji ak Elton toppal ay combat mi ci des yëpp ci biir leewaatoo mu dóor la gauche bu dal wala mu dóor la droite bu gisatoo ko mu def ko ca ñooñu la ko gëj a def loolu lan moo ko ko xañ pour yow lan moo ma ko moo ko xañ ba mu amoon hmm. da nga daan gis day dóor nga bëgg a fay mu daw génn nga attaque ko mu def latéral gauche wala mu def latéral droite mhm. mais loolu Tapha Tine gisatoo mu def ko kor léegi day bàyyi ba kor bëgg la dóor te ci biir koor bi mhm. day koor ba pare di jekkal pour dóor la ñaata yoon la ko tante contre saa booy Boy Niang waaw saa yi muy tante to Boy Niang seen loxo bi daw rocceeku génn mhm. yéex moo waral loolu am moo ko ëma seen bi mu koree ëma di préparé pour dóor ama faale wut koor bi moom daa njëkkanti dóor koy pirkir bi waaw ma ne Mhm. Tafatine champion nga rak. Mm. il faut nga gëm na champion il faut mu gëm ne champion mais da ngay jóge ci combat nga rectifier sa bopp. noo combat boo ñëw même bu dee da ngay daan dinañ la dóor. man d'accord ma loolu Babacar. da nga jàpp ne maanaam day ñëw ci combat même bu daanee sax. même bu daanee dina encaissé la lu métti ba day du loolu. en plus Babacar. Mhm. même rythme la bala bëreeg moom combat mbee da ko kor dóor koy ay pirkil waaw. waaw lu tax ngay war a bëriwaat ak kooku ngay nangu mu lay defaat la même chose. kon su ma la déggee est-ce que jàngat na moom li ko bala daanoo. jàngatu ko jàngatu ko daanoo jàngatu ko quoi jàngatu ko wala bu ko jàngatee tamit liggéeyu ci. Hmm. Babacar boo tegoon combat bu njëkk ba. waaw moog bii la. moom kay sore comme wax moom sore amu ci. moom amu ci même kor la même dóor la. même hmm. attaque la même rythme bëri la. Hmm. am na fu bala jàppee ngeen moom Babacar. di ko dóor di arrière pa booy bi jàpp jàppandu ci moom rek topp ko. bala di arrière di dóor épir nga du ma la bàyyi boo ñëwee di attaqué ma talal sama gauche man tam gauche bi tam waaw non mais attends euh, doy na waar daal <laughs> manquement yi bari na quoi manquement yi bari na ci combat bi trop <laughs> grand daal da nga da nga am lu naqari ma <laughs> naqari nag franchement parler man ah? sportif la bañu ma ko daan waaw bañu ma ko daanu quoi mais façon démb bi moom Babacar waaw dafa doy waar quoi dafa yéeme Balla grand champion la kenn dama ko nangul man bëreem ak lépp mm-hmm. et tout dama ko nangul lool am sañ-sañ loolu lépp dama ko nangul. Balla mais waroon na daan tafaatin mbër te du demee nii quoi. façon jël bi daal da ma laaj ci yee yaram bi. yee yaram bi waaw yee yaram bi waaw. yee yaram bi. waaw Babacar. Mhm. musculation képp mhm. ku sportif di ma dégg di nga xam bu baax li may wax. Mhm. affaire mystique nag leneen la man maîtriser wu ma. waaw loolu sama domaine mystique moom ku ne da ngay dama laa bëgg a wax ne musculation bu bari ci yaram te dindi woo ko tafa bi mu ñëwee bu doon mu ngi yeewu suba gi di daw ay longue distance di def gymnastique. di yee yaram bi am na ay mouvement yoo xam ne da nga koy def pour musculation bi lépp ay naaw graisse bi nekk yow lépp dañ sa yaram nooy sa sidit bàyyi parce que booy sarse sa yaram sidit day gonfale wu lépp day gonfale wu ci biir ah. mais loolu da nga ko war a ba sidit yi lase sa yaram nooy nag léegi nga mën xam ne bu ñu lay def action di nga ci mën a génn travailler sa réflexe sa vivacité yooyu yëpp da ko waroon travailler contact nga xam ne doo yéex quoi nga xam ne doo yéex loolu lan moo maanaam lan moo koy maye contact bi wala daw boobu nga wax yu mel ni kii noonu daw bi da koy maye contact bi da koy maye encore am na yeneen exercice su entraînement yoo xam ne da koy maye mais loolu boo ci bu ci liggéeyoon mooy pendant un mois non bu bëre bala bala du ko def nii encore stratégie combat dafa am Babacar stratégie combat adversaire bu ne dafa war a am nooy bëreek moom. combat dem bi lu nekkoon stratégie pour. pour mais Balla Balla Balla boo xoolee Balla moo doon attaqué ci combat. waaw mais dem dafa. dem dafa dafa juumloo gars yi daa war gars yi daa génn feneen.